ci tay tay la tay motax tay dina def sama katan ketum katalay ketum ba waxtan bi gëna ala dawme bref bu lolu wesso bala ma continuer ma am ben problème bu ndaw bu ma régler ndax té kat ya mi warna jël sama photo diko collecte sama mam Moustapha Niass banan zal à 60 ans la ilaha illallah après man kat dama tit wala man dama nuru mum teyuguma ko ah oustaz iran ah man nga koy laaj i quel defet orphelin tay ken jogay li oustaz iran min na ko ci mom attali bu fal mi kat ndro gi mel ndro ak sama mam Moustapha Niass metti na ma di dara nga fi munul dara ah ñak ci mun dara ke motax tax ma ne la xujj di la xol un point entre ah tere mom kañ la commencé and ak point mais lolu ban matière la c'est le philo ah kon sama mam Moustapha Niass mi kat kañ la doon profu philo te man xawmako yow xam nga ma maag sa bay la won i muni yow xam nga ma maag sa bay la won wa ki ku waxal moma jaxal té nak nag bu ma amoon erreur da na jël bu yagg mais heureusement i jën waay per nañ ko teg ci suuf <laughs> xaaral nag ma daal di eggee femme bi benn yoon li koy gars di laaj yow looy wax ni ah li may wax mooy nit ñi nee kii warut di sol combinaison waaw lu tax waruma sol combinaison ah ñoo ko wax de nga con ah lu ma def li ngeen fi wax rek si da nga con ah, bu fekkee ne da ne daggam bi dañoo àndut mais ngeen wax ko ko tamit man ma am dagg bu rafet am ay ange yu génn sama lii wër ma problème problème yaa ngay démarrer na. ma am dagg am ndigg bu dagg am kanam gu mignon. ah gasta di yaa wax lii. lu may teree sol combinaison. kenn xamu ko. e eh, ñaan ko génn ci rek. leneen lu dul combinaison sax dinaa ko sol barki yonent bi nan ma xaar fu ne. mais xanaa da ngaa wax ji tamit. no man man blende naa ci loolu bu yàgg. kon daal dafa mel ni critique daf la neex. bañu ma critique. mbaa kon ñiy critique duñ continuer di li critiquer. sénégalais ñu mën critiquer yëpp seen dara jagul. nga ni ma. ñu fi dàq critique laa la wax seen dara jagul. mais nak jël sol yére olof touti sax ko duma sol yére olof rek duma mak xalé la mhm. mais d'accord mais nak parfois da ci lal ay marinière ay ndoget plus ay taybas damay sol tuni tubab nu manexé <laughs> wa boy xana li leer na nañ astaghfirullah <laughs> boko topé sax bu yagge nga mel liru ci bari wax ak bojo bojo duma bojo bojo dedet ah bojo bojo nga way liru nak duma bojo bojo ndax te liru mi kat bu gisé caméra day mel ku lek mbuxulan bu nekké wax ju bari bu jël lepp wala daga santé bu jël lepp ba paré nan la waar erreur bu amone amna na askan bi yow kay del djeglu rek yow ak gemagnam gu reuy quoi fu nek lu nek lay wax te sax liru yow mom do reference ndax ñun ñu wëg samori kayta muni ni ñun mi wëg sa amari kayta 11500 yow fo djegge wa mais samori mom kay la sant kayta samori turé sant turé wa mais ku dëgg day film ni est ce que mës na fay am man day deñ na ko gis ko bàyyi mu bëgg a jël Samori sant Kayta. moom ak yaaxal. doon gàdde ko Idrissa Seck rek tax na lu waay wax mu ne am na ci xam-xam. faut respecter les gens yi. te leer na ma ne ko xaw ma ko. xaw de waaye am naa lu bees. astafurlah. <laughs> ok xaaral ma woo Pawlish laaj la Pawlish. alors je t'ai équipé daa rappelé dans dix minutes ah. ok chérie bis portable soixante. i waaw mais xale bi moom xew di. moy ku xamul li xew do ma sa xew de te man dama xam li xew. yow mom lula ci oui ok Pawlish lan moy devise Sénégal. allez ta faire genre il est mignon voilà mu ni. yaay ku yëpp. moo ma jaaxal. yow nak lan moy devise Sénégal. man dal euh, ñu yaata xol yi ñëpp doon ben 11500. yow fo jage moma ma astafurlah. xanaa xamoo ne lii rek moo tax ma bëgg ñu jaay Sénégal. non non non non non. <laughs> Ndoye Ndiaye ma ngay siisu nag. Eh, yow looy siisu. tey moom. ma ci daw Sala yaay Ndeya. dañuy jaay Sénégal ku nekk jël sa wàll. ku nekk douze mille cinq cent lay am. Eh, xës alma foofu douze mille cinq cent waaye instant yii moom damaa presse mënuma daraay xaar. bu gars yi jaay réew mi rek nga jël sama douze mille cinq cent am vingt cinq mille. last douze mille cinq cent laa fi yor last. ah jël na nag. Cheikhul Ibrahima Baba Lamine Diassi. Eh, man de li la wax mbay leen loolu ngeen wax. man ñun li nañu mëna wax do Ndoye Ndiaye. kon bu ko defee suñu mam mën nga def ñaan. wasamsi wasamaa. amiin. wal za saaka. iPhone les gars, faut toniquer les plus de